per preparation yi 23e édition bi lan ngay wax gars yi. non kontaan rek ñaax leen rek. ñu laal nu violence suñu. ñu ngi nag. nar philothérapie. kon nag yaakaar naa ne la chef de l'État dina nekk. Mm-hmm. ndax li fay def na lu leen wax. Mm-hmm. boo xam ne mm-hmm. amul yeneen yu ñu xalaataat. la rek kër yi mu réussir. loolu rek moo fi des. loolu rek moo fi des gis nañ président.

moo tax nga teel ñëw gis nañ bërki démb tam président dalal leen gars yi ni lépp loo xam ne moom waroon na si bis bi def na ko te niñ gisee stade bi niñ koy installé mel na ni loolu tubaar fa kàlla macha allah non président daf ñu war a dalal parce que nous sommes des uh-huh. kon suñu dalalee ñu wax ne bu la République maître Abdoulaye Wade ñun daf ñu dalaloon uh-huh. recevoir recevoir ñu pare uh-huh. kon tey Macky suñu recevoir pare ndamu askanu làmb la surtout euh, nous recevoir les anciens couleurs de la lutte doomu Mère Mbaye seen président ba tey ñoom la recevoir Macky Sall ñëw ñoo askanu làmb yëpp arbitre ay communicateurs traditionnels ay écuries ay écoles tout le monde de la lutte pour dire en finir kon nag loolu rëy na dañ ko war a gërëm ko parce def na lu baax def na lu rëy. dëgg loolu am na solo mais dina xaar xam naa ni yooyu moom mënta ñàkk nga indi animation boo xam ne dinañ gis cosaan gis culture. non loolu loolu lay xeex toujours. Uh-huh. suñu cosaan. Uh-huh. loo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp. Uh-huh. mooy suñu sport national. dañ ko war a toujours di dellu cosaan bi. cosaan bi ñëwaat. paa yi ñëw. maire ñëw. C'est yi ñëw est yi la ndabram yi ñu fêter le drapeau du chef de l'État son excellence 14 raisons du Sénégal que le meilleur gagne 14 raisons du Sénégal que le meilleur gagne 14 ah. <laughs> raisons du Sénégal ah. que le meilleur gagne ah. mais le passage

ça c'est mon père ndeysaan moom père Manga 2